am nañ mbégte beneen yoon jano ak yéen fas yéene waxtaanee li gën a fes ci réew mi waaye itam di kontaan ci commentaire yi ak appel yi nga xam ne ñu ngi koy jot di gis itam réaction yu bëri bëri yi nga xam ne yéen a ngi koy def vis-à-vis des chroniques de AGT mu nekk loo xam ne dañ ciy kontaan bu baax a baax di leen ci jaajëfal. ci bés bi nga xam ne nag dafa ñeel mbirum garab Ousmane Sonko dafa am ay kàddu yu am solo yu mu ci yëkkati. am benn comparaison boo xam ne def na ko ñu bëggoon leen koo dégtal bu ñu noppee doog leen koo jàngatal nañ teewlu kàddu yu Ousmane Sonko ba noppi doogu mën a dikkat suñu jàngat waaye bu leen fàttee aimé vidéo bi comme ni ñu koy waxee saa su nekk partagé ko itam ngir ñu bëree bëri mën cee jot Ousmane Sonko la ñuy teewlu. ak keneen ak keneen ba Maroc di fa jaar tey Sénégal ma nga ci tànk yooyu te loolu ñoom ñoom ñoo ciy profité kon ñu continuer di leen woo rek su. son excellence président de la république lancé ay programme soxla ndaw ñi man ak sama gouvernement ñu war koo conduire na ndaw ñi spontanément jóg te ànd seeg patience ndax garab gi jëmbat nañ ko tey de waaye du meññ tey ku yaakaar tey tey nga witti doo witti waaye condition yi ñu ko jëmbatee fexe ba jël suuf soo xam ne ànd ak moom def ko jiital ko def ci liñ ci war a def te bis bu ne ñu jaar arrosé ko moo tax ñu am yaqin ni bu soobee yàlla fii leeg diir dinañ ñëw witti kon réew it noonu lañ koy tabaxee fondamentaux yi mu am solo fond fondamentaux yi ñu fi fekk moo baaxuloon loolu il faut ñu noddanti ko te ci fan yi di ñëw dinañ cee wax ak lu bëree bëri bëri Sénégalais yi fondamentaux yooyu nag suñ ko noddatee ba pare ca lay mën a nga mën a commencé di teg ay briques yuy tabax gratte-ciel lu ko may rek du sotti kon di continuer woo ndaw ñi ay une mobilisation mm-hmm. forte et exceptionnelle xam ni la ñuy jëmbat mm-hmm. bu soobee yàlla man maa leen ko wax avec assurance nag mm-hmm. ndax tey tool tool naa foo xam ne mun naa ne tiim naa mbir yi mm-hmm. càmbar naa ko liggéey naa si ñetti weer xam naa fi ñu jëm ma wax leen ko ak assurance comme ni ma ko mës a waxee ci lépp lu may def ma jox leen garantie ni fañ leen ne woon fa la ñu jëm incha allah gannaaw yàlla amul lenn luy dund ci àdduna lu ko mën a dee kon la ca des ñoom ñu gën a takku ànd ak patience def bloc autour de ñi ñu ji jiital te wóolu leen fu ñu leen joxoñ ñu ànd ceeg ñun bu boobaa dinañu gis très très bientôt les premiers résultats les premiers fruits de cet engagement incha allah muy njëriñu Sénégal di seen njëriñ ñoom di seen njëriñu waajur muy kàddu yu solo yoo xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko d'abord dafa jël en exemple ay réew yu mel ni Maroc Corée Chine Japon ci montée en puissance bi nga xam ne def nañ ko ci àdduna bi loolu la bëgg a méngale tey jii ak Sénégal ne Sénégal bu fekkente ne def nañ li ci war foofee mën nañ faa dem nan ak naka dafa am lu ñuy woowee le projet projet boobu la Ousmane Sonko jéem a méngale ak journée de l'arbre maanaam garab bi nga xam ne moom projet bi mooy représenter mbir mu ni mel maanaam bu ñu doon xool day mel ni projet bi ab garab la bu ñuy jëmmat war koo suuxat ngir mu jur njëriñ bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci réewum Sénégal li nga xam ne Ousmane ko bëgg na ko mooy une mobilisation de la jeunesse autour du projet maanaam képp kuy ndaw jug takkatoo booloo ànd nekk benn say ngir jëmmal li di projet bi jàppale ko taxawal ko ba Sénégal mel ni réew yooyu nga xam ne moom la ñu fi lim waaye dafa am lu ama am solo lu mu ci boole muy la patience patience mooy lan bañ a yàkkamti patience mooy lan ñu tey xaar patience mooy lan ñu def suñu kéemtalaay kàttan ngir mën a am les bons résultat waaye buñ ci yàkkamti lenn ndax mbir mi tepp-tepp la benn benn la bu nee yuret rek mën nañ ne lañ doon séntu duñ ko am waaye bu fekkente ne def nañ ci li ci war yëpp résultat bi nga xam ne moom la xaar loolee danañ ko ci danañ ko daal di mën a jot mu teg ci ne garab gi mënuñu koo jëmbat tay jile am li nga xam ne moo di fruit tay jile maanaam mënuñu ko jëmbat tey rek witti ko tey jile loolu mooy lan projet bi nga xam ne sumb nañ ko ngir Sénégal mën a soppeeku. ndax dañuy yëg au pouvoir léegi léegi rek mën a am ci saa si ay résultats déedéet mbir yi dafa am yoon boo xam ne fa la war a jaar am itam noo xam ne noonu la war a demee garab ga ñu jëmbat mooy lan mooy le projet qui vient de s'installer au pouvoir maanaam projet bi ñu doon xeex ñun samp nañu ko fan lañ ko samp ci suuf bi ñuy woowee état maanaam. tey jii ci réewum Sénégal li nga xam ne dénkoon nañ ko ñi fi jógee muy Macky Sall ak nguuram lan la c'était l'état état boobu nag dafa am lu fa nekkoon mooy lan mbuxum dafa am lu fa nekkoon mooy lan euh, mal gouvernance li nga xam ne itam moom moo di dëggte àq ak yelleefu doomu aadama yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu la doon lim tey duñ fi jógee loolu yëpp moom la ñu sampoon au cœur de l'état waral sénégal yi doon ci dundu ay conséquences yoo xam ne kenn xamul lu mu doon tey jii qu'est-ce qui dañoo ñëw simpi ko moo waral ñu naan dañoo simpi système bi samp projet bi simpi boobu mooy lan dañoo dindi duñ ne benn garab waaye dañ naan benn benn benn tooke boo xam ne daa nekkoon ci état bi samp loo xam ne tey daf ñuy may ñu am nokki gu baax daf ñuy may ñu am dund gu baax daf ñuy may ñu am wér gu yaram gu baax waaye itam daf ñuy permettre ñu mën a am ci gàttal dundin boo xam ne day mucc ayib mooy lan le projet projet boobu mooy lan mooy garab bi ñuy jëmbat garab boobu nga jëmbat dafa am nag loo xam ne moo koy sous-tendre mooy lan suuf sa mu nekk suuf soosu noonu bu fekkente ne méngale nañu ko ak li nga xam ne moom la ñu bëgg ñun muy la projet mooy que ne dafa laaj ay conditions conditions yi mu laaj mooy lan mooy il fallait que d'abord sénégalais yi xeex xeex bu méttee méttee métti bi nga xam ne def nañ ko suñu diggante ak Macky sàll ak régime am ba mën a egsi fii nga xam ni moom mooy samp projet bi jëlee leen fi ñoom mu di sempi li nga xam ne moom moo di système bi. loolu biñ ci weesoo dañ ko def nag en toute démocratie dafa am leneen loo xam ne dañ koy soxla muy la qualité du sable maanaam li nga xam ne mooy wër loole nga xam ne moo di garab gi dañ leen wax léegi ne garab gi euh, li nga xam ne moom moo di suuf si dañ koy méngale ak état bi kon suuf soosu di wër garab gi moom mooy lan mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñooy wër état bi ñoom ñooy jëmmal état bi ñoom ñooy nekk autour des affaires ngir mën a doxal li nga xam ne moo di le projet projet boobu di garab gi ngir mën koo may mu daal di màgg mu am croissance ba noppi itam am li nga xam ne moom la ñuy woowee meññeef loolu moom la Ousmane Sonko di jéem a jël comme analogie ngir expliquer en quelque sorte li nga xam ne moom lañ nekk di def jamono jii te lu ni mel dafa am lu mu laaj maanaam garab googu nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko ne dañ koy toppatoo di ko arrosé saa su nekk def ci engrais def ci li nga xam ni moom mooy lépp luy ay conditions ngir mu màgg dafa am tey jii lu ko jëmmaal ci benn baat mu di jub jubal ak jubbanti maanaam projet boobu noonu nga xam ne moom lañ samp tey ci suuf si ñuy woowee état tey jii nii pour mu mën a marcher il faudra à chaque fois tout instant à tout moment ñu koy arroser jub jubal jubbanti jub ci nit ñi koy incarner ñi nekk autour jubal jéem a xool naka la ñuy def ba projet boobu ñi koy doxal teg ko ci yoon jubbanti lépp loo xam ne fekkoon nañ ko fi comme tilim tilim muy salte salte yi nekk ci booru garab geex lépp loo xam ne lu koy gàllankoor la ñu koy dindi benn par benn di ko seppi benn par benn tegee de côté ngir garab googu mën a am croissance bu mucc ayib waaye itam lépp lu koy wër nekk qualité loolu mooy li Ousmane Sonko di jéem expliquer par rapport à l'arbre et par rapport au projet lam ca soxla mooy une mobilisation exceptionnelle de la jeunesse su ñu nee une mobilisation exceptionnelle mooy li ñu doon gis démb ak bërki démb jamono ji fi président Macky Sall nekkee woon lan la mooy ndaw ñëpp doon wàcce ci tali bi di xeex ak régime bi fi nekkoon pour lan pour injustice bi nekkoon ci réew bi ñu mën ko fee jëlee tegee ko de côté indi fi lu bees mobilisation boobu yéeme woon na trop jaaxaloon na Macky Sall jaaxaloon na itam ñi mu àndaloon waaye li ñu doon mobiliser wu démb. dafa am objectif bu ko waraloon muy xeex pour samp li ñu wax tey jii muy la projet tey bu ñu demee ba samp ko ana lan lañ war a def mooy lañ mobiliser woon démb ñu multiplier ko par deux voire par dix voire par cent ngir mën a am li nga xam ne moo di réussite du projet projet boobu dañ ne woon bu toogee ci bopp nguuru Sénégal dina tax jafe-jafe yu ñu doon dund démb ci régime bi fi jóge ak yeneen yi fi jóge itam ñu mën cee génn projet boobu dañ ne woon buñ ko jëmaalee dina tax Sénégal bi mën a yëg boppam ci réewam ba noppi itam Sénégal bi am gëdd biir Afrique am ko itam ci àdduna wërngal képp loolu buñ ko waxee ça veut dire kon lépp loo xam ne defoon nañ ko démb comme effort pour lii mën a taxaw tey lañ ko war a gën a mën a multiplier ngir mën ci am le bon résultat ndax ñun dañ koy faral di ko wax saa su nekk suñu jàngat la réussite du projet c'est-à-dire de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président c'est notre réussite mais seen échec tamit suñu échec la parce que ñun sénégalais ñoo xeexal suñu bopp ndax ñoom kese bu doon ñoom la lii du am lii du antu lii du sotti kon Macky Sall wala candidat am ñoo moo fiy toog ba tey waaye ñun ñoo àndandoo xeexandoo ak ñoom ngir mën a am ce résultat la donc ñun ñoo war a àndaat ak ñoom mobiliser wu saa su nekk am conscience ci li ñuy xaar xam itam lan moo ñu war ngir mën a yóbbu projet bii vers le succès te succès boobu nekk leen lu dul dëkk yi ñu lim au départ suñu jàngat mooy ay Maroc ay Chine Corée et cetera ñu dem a dem a dem ba mel ni ñoom wala ñu xaw a méngoo ak ñoom fii ak ay at te dema a dem a dem sax ba dépassé leen c'est bien possible. pourquoi c'est possible am nañ ressources naturelles yi maanaam suñu suuf am nañ fa or am nañ fa gaz am nañ fa pétrole am nañ fa zircon ak yeneen xeeti richesse yoo xam ne saa su nekk Samba Tall Sarr lim ko ak itam ressources humaines am nañ ay ndaw. ñoo xam ne jàng nañ ba ne ar ay ingénieur am ci ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn yi nga xam ne soxla nañ ko ci réew mi ngir développement mën a am ñooñu dafa am encore une jeunesse boo xam ne mi ngi fi toog liggéeyul soxla na ko xamul fu mu jëm xamul fu muy jaar ñenn ñi sax dañuy obligé jël géej gi loolu yëpp buñ ko mobiliser dañuy mën a am succès bi nga xam ne moom la ñuy xaar par rapport ak suñu am réew lii mooy mobilisation bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko. di wax par rapport ak li nga xam ne mooy le projet buñ ko arrosé nag ak jub jubal ak jubbanti loolu daf ñuy permettre ñu mën a teg li nga xam ne moom la ñuy woowee les fondamentaux mooy li Ousmane Sonko di wax ces fondamentaux là mooy lan kër boo koy tabax dafa laaj nga defar fondation fondation boobu ngay defar moom mooy téye kër gi ba xam ne ëllëg booy doon teg ay étage sax du yëngatu du bouger te lépp loo xam ne fekk na ko fi itam mën na ko fee mën na ko fee bàyyi loolu lii nga xam ne mooy base bi bu ñu ko defaree ba noppi dina tax tey jilee ñu taxaw ci lu dëgër loo xam ne day tax ñu mën a teg ay étage étage étage te loolee du ñun comme ni ko Ousmane ko di waxee sax ñoo koy fekkee waaye les génération futures ñoo koy mën a jëriñoo ba ñu xam ne seeni ay ancêtre seeni maam am nañ lu leen fi bàyyi lu mucc ayib te loolee lenn képp moo ko waye muy liggéey bu ànd ak jub jubal ak jubbanti kon garab googu buñ ko jëlee exemple ci guy buy doog a jug ñu koy doog a ji du am doole bi ci war du am ni nga xam ne moom mooy résultat dëggantaan bi ñuy xaar ci moom wala sax guy day sol yu njël garabu mango comme ni ko nga ko waxee garab goog bu ñu ko jiwee au départ dafay faible waaye dañ koy entretenir di ko suuxat di ko suuxat ba mu dem a dem dem ba nekk garab bu dëgër boo xam ne moom ci boppam ci jaaree ko ci ay reenam mooy dem di puiser ji li nga xam ne mooy ay ressources yi mu soxla ngir mën a am. croissance bi mucc ayib ba noppi itam mën a produire des fruits fruits yooyu dañuy dem ba mu jëriñ keneen ak keneen ak keneen mën nga ci witti lekk garab gi ci boppam xas mi mën a dem mën nga mën nañ ci am li nga xam ne moom de produit pharmaceutiques li nga xam ne itam moom moo di euh, mango yi muy produir mën nañ ko jël développer ci li nga xam ne moo di industrie ubbi ay usines yoo xam ne par exemple day defar ay jus de mang loolu dina permettre nga am à la fois industrialisation waaye nga régler waale la question de l'emploi ndaw bi nga xam ne mu ngi woon ci benn dëkk amul lu mu liggéey amul ci lu mu xëy day toog di xoole ba sax di indi yeneen lu muy jur parce que dañ naan l'oisiveté est la de tous les vices yàq-yàq yi nga xam ne mënoon na ko indi ci askan wi ndaw boobu naroon toog di xoole bay nar a dugg ci loo xam ne da koy lor lan lay mujjee def dem liggéey ji ànd ak état bi gunge ko ngir mën a produire loo xam ne sax moom da koy dundee produire itam loo xam ne dina tax état bi gën a am doole ndax loolu bu ñu dee am benn qualité bi ak benn quantité bi mën nañ cee jëriñu ba jël génnee ca bitim réew. mu nar a permettre Sénégal nekk pays boo xam ne dafay tàmbali di exporté maanaam day jël lu mu defaral boppam di ko yóbbu ci bitim réew mu nar a indi une balance commerciale boo xam ne day excédentaire contrairement ak balance commerciale bu déficitaire bi nga xam ne moom la ñuy dund fii ci réewum Sénégal lii mooy li nekk autour Euh, du discours du président Ousmane Sonko ci suñu xalaat bu gàtt bi nga xam ne am nañ ko ci par rapport ak li nga xam ni moo di le projet kon pour ñu am réussite il faudra que ñu am une mobilisation exceptionnelle maanaam bu ñu sonn bu ñu tàyyi bu ñu daw bu ñu dellu ginnaaw nañu xam ne lii rek moo mën a tax ñun ñu jëm kanam nañu xam ne buñ ci doxul ëllëg dinañu ko rëccu ñii nekk tey di opposé opposé lu ak ñiy jéem a yàq xelu sénégalais yi benn objectif la ñu am muy l'échec du projet parce que mënoo ne da nga àndoon ak nit ñi xeex ba gañe ki nga xam ne moo di ma Sall ak nguuram muy la système jëlee ko fi yow la projet ñëw sampu nga ne déedéet damay tàmbaliwaat di opposé waat pourquoi parce que dama bëgg opposé wu tout simplement parce que am réew daa war a am opposition mais une opposition constructive au moins sax ñu nangu ko mais opposition boo xam ne yàq xelu nit ñi moo la tax a jóg opposition boo xam ne détourné nit ñi ci seeni objectif yu baax moo leen tax a jóg opposition boo xam ne leen naa leen yitteel muy ay post opposition boo xam ne naka la ñuy def ba élection yi di ñëw ñu gagné yenn euh, poste yi pour mën koo occuper kese mooy seen yitte nekk ci ay privilège loolu nag sénégalais yi nand nañ ko te duñu ko bàyyi muy prospérer lépp lu luñ ci mën dinañ ko ci wax dinañ ko ci def ba nga xam ni dinañ yeewu xam fu ñu jëm te niñ ko defee woon avec le projet noonu lañ koy continuer di ko protéger di ko aar di ko yiir ngir ñun ñëpp ñu mën cee am li nga xam ni moom moo di satisfaction te ñun dañ ko ciy am ñoom ñuy opposé opposé lu dañ ko ciy yëg ndax ñoom ñooñee ñooy nekk sax bu ma les premiers bénéficiaires ndax xam nañ bu baax a baax projet bii lii nekk seen njëriñ bés bu anto ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ci teewlu bi di joxante yéen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jërë ngeen jëf AGT News